Touba ca kanam Touba ca kanam ak seen banqaas bi ñu duppee comité étude et contrôle ñooy waajal journée bu am solo mbokk yi journée de réflexion sur le plan d'action prioritaire 2021 2022 mbokk yi loolu lu mu undu xanaa dajale boroom xam-xam yoo xam ne nii kenn naataablewul seen xam-xam ci fànn yépp nag ci lépp loo xam ne nii yitteel na dëkk bi ci lépp loo xam ne nii soxal na dëkk bi dëkk bu sell bi di Touba lépp priorité la looloo tax Touba ca kanam ak communité d'étude et de contrôle mbokk amal journée de réflexion sur le plan d'action prioritaire 2021 2022 fas yéene dajale borom xam-xam yi ngir lan ñu xalaat lépp loo xam ne nii njëriñal askan wi lépp loo xam ne njëriñal dëkk bi la loolu nag incha allah samedi 5 décembre dimanche 6 décembre à partir de 9 heures fii ci kër Serigne Touba gi ci Daaru Marnaan muy lu am solo ndajam borom xam-xam yi mbokk yi ngir lan ngir lu jëmale Touba ca kanam ndajam borom xam-xam mbokk yi ngir lan ngir lépp loo xam ne ni secteur la mu nekk ci dëkk bu sell bi di Touba mbokk yi bàyyiwuñ benn secteur danañ xalaat dinañ waxtaan dinañu weccee ay xalaat ngir lan ngir njëriñal dëkk ngir lan ngir njëriñal askan bi fii lay xewee mbokk yi fii ci kër Serigne Touba gi ci Daaru Marnaan samedi 5 dimanche 6 décembre Touba ca kanam